bépp ndaanaan war na cee ñëw bépp ndaanaan war na cee nekk waaye bépp ndaanaan war na cee gën a mën a siiw bu baax a baax ci keppaaru jànkat yi kon bu ko defee xam naa ni dañu ko daal di bàyyee kàddu gi rek mu daal di nuyoo bu ko defee ñëw ci waxtaan wi ba mu gën a leer soxna maam Diarra Ka ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax di la seen émission keppaaru jànkat yi. bisimilah bisimilah inna waliyallah barke Seera Fall ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp Ah, di sant yalla di jublu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di gërem Sëriñ Bamba di sant maam Cheikh Ibrahima Fall abori Jaar di ñaanal kilifa diine yi di ñaanal kilifa aada yi di sant di gërem di ñaanal ñepp di wax ni seigne lat kontaan nañ ci dalal bi ñu dalal ñu ngi ci sant bu baax di la gërem di sant ñi nga andal ñepp di gërëm suñu jëwriñ Mouhamadan Jité Baye Fall di gërëm bu wér suñu jëwriñ ju jigéen jëwriñ Maram di gërëm Baye Fall yi nekk ci ginnaaw Mouhamadan di gërëm Yaay Fall yi nekk ci ginnaaw suñu jëwriñ ju jigéen ji di sant rek di gërëm di leen wax ni kontaan nañ bu baax a baax a baax jërëjëf. jërëjëf soxna maam Diarra euh, commencement bi nuyu yi macha allah kontaan nañ ci bu baax a baax a baax ci seen site internet. Euh, teuf connexion TV ci kippaaru jàngkat yi macha allah nii rek lañ koy defé fep fu ndanan nek inshallah allah rabi dinañ ñew waxtaan ak yow ndax fu ndanan nek rek inshallah allah dinañ ñew fekk rek ci sa biir kër waxtaan ak yow tay nak ñu ñew ba ci sa biir kër di waxtaan ak yow ci jataayu euh, jàngkat euh, mboolem ko xam yaangi tag yonte bi sallallahu taala alayhi wa sallam ñu ngi la ci bëgg di la ci bu baaxa baax bu ko defé soxna maam jaara kan moy soxna jaara Tuliyaayi ak tamit ban année la commencé yëkkati tur yàlla wi ak tamit ci euh, ban kuréel la bokk bu ko defee ñu soog a jublu ci waxtaan wi incha allah. waaw oh, sëñ Laat kàddu yi am na solo di wax ni soxna jaara moom soxna jaaram sincère digal la soxna jaara yaay faal la soxna jaara xitma la ndax ci tur yàlla wi lañ ma gën a xam sax waaye ci xitma gi laa ëpp doole lu may nekk. ndax suñu jëwriñ mouhamadal jite moo ñu ci tàggat teddañu ci ba tey ñu egsi ci fii mën ci am tamit liñ ci am ñu ko koy sante bu baax di ko gërëm bu wér euh, sekeer moom maanaam maa ngi si dugg 2007 laa dugg ci tur yàlla bi maa ngi njëkkëre njëkke si kere tamit xel koom euh, euh, gor bi suñ sa suñ saale woote woon suñ seen ndigal jiite woon ñu ñu demal xel koom foofu laa njëkk a tudde yàlla boobu ba tey nag maa ngi ciy sant yàlla bu baax ndax saa su nekk rek maa ngi ciy gis sama bopp ah, suñ jëwriñ nag moo ñu nag ba léegi ni bàyyiwuñu di ñu jàppale di ñu tette bu baax di buñ di ñu dimbali suñuy fët di ñu wan fi ñuy jaar di ñu bëgg di bëgg ñu koy sellal fu ñu toll di bëgg ñu koy jaarale ci yoon fu ñu toll kon jërëjëf Mouhamadane jite Baye Fall bi di lépp moom la ñu ngi bokk nag ci kuréelu Serigne Cheikh Ndigal Fall fii ci ngaay jëwriñ Mouhamadan ba tey moo ko fi jiite ñu topp si ginnaawam ak Baye Fall nekk ci ginnaaw ku mel ni Serigne Ndiakhate Diagne ku mel ni Serigne Mamour Diouf ak Serigne Ndiogou Dieng ak Serigne Sang Baye Fall maa ngi leen bu baax a baax jërë ngeen jëf. soxna maam Diaraka loolu am na solo ci leeral yooyu fi nga eh, duggee ci kuréel gi ak ñi nga xam ne ñoo nekk say kilifa. ban taxaw la ba nga agsi fii waaye soxna maam jaara euh, euh, bundee la laaj ngir euh, suñu mbokki internet yi bëgg a xam tamit kan lay roy ci sikru la ak tamit gën kuréel lay àndal bu dee yëkkati baatu bi laa la ñan moo koy ñan moo koy aw ak ñi lay tëggal tamit ñooñu tamit ñan la ci ban kuréel tamit ci sa diggante ak ñoom yan yan yan yan kóllëre ngeen séq ba tax na buñ jógee rek ñoom jukk ànd ak yow. jërëjëf sëñ laat kàddu yi am na solo waaw di la wax rek ni sikar moom maa ngi ciy roy soxna aada mbaay mu sëriñ Cheikh Ndigal ma koy nuyu moom tamit bu baax mu doon ku ma bëgg ku ma jàppale ci li ma nekk barki démb rek doon naa def benn bés woon na ci ma kontaan ci bu baax a baax ndax boo dee roy nit ba mu fekk si la sa dëkk moom loolu mbett mënu ko romb ci wàllum aw mi kuréel gi ma nekk wàllum aw mi ma nekk maa ngi ci ànd ak soxna yi ah, sama jëwriñ ba pare oyof lool soxna Maram Ndiaye bu ma ko woowee ni ko dama am bërëb sànga programme mooy njëkk a jóg takk laxasaayam te moo ma mag te mooy sama jëwriñ ma si teg soxna Ndey Ba sama yaay faal boobu nga xam ni wàcc na boppam lool ci sama kanam oyof na lool ci sama kanam ndax nag man neexuma àndal waaye ñoom ñu ma jàppale lañ te ñu baax lan ñu ma bëgg li ma nekk ndax xeebalul ma benn yoon li ma nekk dama koy wax ma ne yaay faale awma seen fay ndax heure bu nekk génne naa leen ko yenn saay sax ñu dem si programme programme bi naqari lool waaye duñ ma xoole benn bët boo xamante ni si rek day tax bu ëllëgee duma leen ñemee woo ma leen ci sant bu baax sama yaay faal yooyu di leen ci gërëm wàllum tëggkat yi tamit maa ngi ciy ànd ak ku mel ni sang Baye Fall Cheikh Kunta Yoro Baye ma leen di gërëm sama Baye Fall yooyu nga xam ñoom tamit fu ma egg rek ñoom la fu ne ànd ak man bu ñuy dem seen xel man lay daj pour ñu wooma li ma soxna jaar ak te dañoo am bés dajale soxna yi loolu tamit koy sante bu baax ndax bu leen neexoon li ma nekkuñu ñu xeeb ma ci waaye dañ ma cee jàppale bu baax a baax bari na bërb yu may nekk sax danaka duñ xam ci karkat la ndax duma ko bëgg di fessal ndax ah dama bëgg sëriñ ndigal ba xet ma rek la bëggoon di fété wo waye xamna ni mom moma ma ci kasse may wax rek ni manam di sakku ñaan rek ngeen ñaaral ma ma gën ci jëm ci kanam ndax bëgg na ko jërëjëf soxna maam jaaraka Ka yaakaar loolu ku ko dégg xam ni tamit cadeau eh, yi leer na wax ji tamit machallah tamit Euh, ku ko dégg xam bi daal eh, mbir mi bëgg nga ko am nga foo ko teg ca tamit yaa ngi ci dundee yaakaar yaakaar yi yàlla bu mu tas waaye bëgg na tamit sunu mbokk internet tamit ñu ngi dégg maam jaara ka maam jaara waaye tamit bëgg na tamit nga yëkkati leen eh, benn eh, sikurula pour ñu daal leen koy mën a xuusi rek ci waxtaan wi nga daal leen koy bëggale sa soppe yi nga xam ne tamit ñu ngi lay suivre tamit di ànd ak ñun ci sunu émission bi nga xam ne mooy keppaaru jànkat yi ko defee defee sama maam jaara dañ bàyyi rek nga daan di may benn sikru laa rek ko defee koy bégale ñi nga xam tamit suñu mbokk internet la ñëpp ñu la ci ànd kon daal di koy nga daal di ciy bégale incha la ilaha illallah sidina rasulillahi sëriñ sëriñ Seex ndigal faalu yaay borom yërmande lay lay fal ilala amana rasulillah sëriñ Seex bay faalu yaay borom yërmande doonu reer duna reer jàmbu reer yaa gindey sëriñ Seex ndigal faalu yaay borom yërmande lala serafal amoo morom sëriñ Seex ndigal faaloo yaay borom yërmande jërëjëf. Pape Diarra suñu ñëwee ci olofal yi ndax loolu yaa koy bindal sa bopp wala daa am keneen koo xam ni moo lay bindal olofal yi nga xam ne moom ngay sikkare di ko jaara ci turu yàlla wi. suñu yi moom suñu seen ndigal moo ko bind moom moo ko bind bi mu ko bindee nag. Euh, ñun tamit doonul loo xamante ne sax dañ koy li tiim ci ay kayit di ko liir dafa am fu mu ko jaarale rek ba mu egsi ci ñun waaye doonul loo xamante ne si tamit kenn moo ñu koy bindal maanaam mbindum sëriñ bi la daal. ci wàllum programme baas ndax am na cant yoo xam ne yow yaa ko war a dem jàngi fanaane guddi wala nga dem maye ay ngont sa diggante ak sa soppe yi. waaw dañuy dem nag fanaane base waaw ndax. duñ def sax directement si ñun waaye dañoo am jëwriñ joo xamante ni si maanaam moom moo ñuy jiite moom la ñuy waxal rek buñ demee heure bi nu mën a tool dañuy nekk xaar ko donte euh, minuit la une heure wala quatre di du matin wala cinq heures du matin heure bu mën di doon rek moom dañuy toog moom ñu nekk ko waxtu woo jot nga sikkal ko doo ko yiwee ko. baas bi nga ñëw sikkar gars yi dara laa xiin yi awkat yi taxaw sa ginaaw nga taxaw yëkkati. baatub laa ilaha illallah yëngal baas bi ba ba baas bi jaxasoo loolu euh, ban cofeel lay def sa digganteeg ñi lay bàkkal rawatina ñi nekk sa ginnaaw di la aw la sëñ Laat ñi nekk sa ginnaaw di la aw dinañ kontaan ñi lay bàkkal dinañ kontaan waaye duñ si leen ñun ndax booy déglu ci sumbil si ka di nga dégg nga ne bu leen ñu yéem ma ni yéem leen ko moom mm. Serigne Cheikh Ndigal Fall ndax si kasi moo ko def ci ñun billaay mm. sikkar yi sëriñ bi mooy sikkar mm-hmm. suñu yëngalee baas moom la mm-hmm. lépp lu mën di xew ci biir baas bi tamit moom la mm-hmm. waaw sëriñ bi daal maanaam moom mooy def lépp daal ñu gis sa benn vidéo biñ ko gisee baas bi macha allah am nu mel daanaka foofu euh, kenn xajatu fa foo boo boo boo gisee nit ñi kenn ku ne mi ngi am mbégte am contentement bu baax a baax ci tur yàlla wi nga yëkkati euh, mais euh, loolu Euh, sama nit la wala maanaam boo duggee ci baas dafa am euh, lu lay dikkal loo xam ni yow daal doo doo maanaam ci baatinu sëñ bi lay doon. waaw loolu tamit dëgg la ndax euh, loolu neex na ci man ni koy def ndax su ma sañoon bu ma yoree rajo di sikkar nit ñi dañuy kontaan dañuy jóg dañuy lii ma xam ni ñii li may wax ñu ngi koy yëkk maanaam loolu li koy maye mooy ñu sellal ko daal. ndax sikar bu dee sell rek lu ne mën na see xew ci lu baax waaw kon daal nañ koy sellal rek di ma ci soññ sama moroom sikkarkat yi loolu gën a mën ci sellal ko ñu ko koy def bu baax a baax léegi kon ñi dem xool sa benn vidéo boo xam ni yaa ko sikkar ñi dem daal koy duglu ko seetaan ko tuuti mba suñu mbokki internet yi bàyyi ci xel bu baax a baax a baax dëgg yàlla lu jóge ci xol ci xol rek lay dellu euh, vidéo bi fan nga ko sikkare ak kañ la vidéo bi nag maa ngi ko sikkare woon fii ci suñu dëkk bi ngaay ci laa ko sikkare woon suñ benn soppee moo amoon am gordu waxoon ñu ko ñu demoon ca ñu demee tamit mu teeruñ teral ñu ba suñu heure ñu génn biñ yëkkatee tamit wax dëgg yàlla xolam sedd ñu guyu ñu ngi ko defee woon fii nag fii ci dëkk bi ñu dëkk di ngaay yaakaar naa ni tey mbooleem kuy soppee mbooleem koo xam ni xaj nga am di jàmm euh, lii su ko gisee xamee tamit bëgg-bëgg rek mooy li am solo euh, sa commencement jàng euh, ndax nit ki buy dem di wuti dara il faut mu am mu dégg ci yenn xeeti wax yeneen xeet yu koy gàllankoor sa diggante ak say waajur ndax lii mës na leen a neex wala ñoom ñoo la ci gën a encouragé pour nga dugg ci wala euh, tamit euh, euh, sa digganteeg sikars yi nga ñëw nga nga nga leeralal mbokki internet yi sa digganteeg say say waajur mbaxam xam ban taxawaay la ci am sa digganteeg ñoom. waaw côté boobu moom maa ngi ciy sant yàlla bu baax ndax daanaka bu ma ci duggee bi may dugg ci sikar lu ma gën a yokk dugg ci waaru Baay Faal ba am ci yàlla wi sama papa ci la bokk. ma koy ñaanal fa mu tëdd yàlla na suuf oyof ci kawam yàlla yàlla yokki leeram mu doonoon nag sëriñ daara jànkatu alxuraan ku bëggoon diine fonkoon lislaam waaye bi mu fi jógee bàyyi ma ak sama yaay sama yaay jàppale na ma ci lool lool ci si kes yi moom tamit ndax heure ma mën a génn rek duma wax dara heure ma mën a ñëw duma wax dara damay wax ni ma xam naa ni doxoo benn tànku caaxaan kon loolu ma koy sant yàlla bu baax a baax samay waajur moom jàppale nañ ma ci bu baax mosuma ci am ak ñoom benn difficulté wax dëgg yàlla. loolu moom nekk na li nga xam ni tamit lu am solo la ci leeral googu ndax euh, commencé dafa metti waaye tamit rawatina tamit li nga bëgg mooy sikkar en tant que jigéen euh, nga jóge yenn programme yi ay minuit ay 3 heures 4 heures 5 heures ñëw fekk waa kër gi tëdd loolu ban situation boobu nan nga koy dundee en tant que jigéen. jigéen muy dox yeen heure yi nga war ni kat ah wa ki fum mu waye ak comportement bi ndax yalla day def bu ñuy génn suñuy cër day daj dama koy wax ma naan dama jomma dox ci mbedd te ci kër yu ma sax di sol lo xamé naka suñu non la ndax bu ëllëgé bu may taxaw ci public bo ñëwé tamit fekk wa kër gi yow yaay yow mi nga xamné ya wuti ya bëgg rek yaay masla ba am li nga bëgg rek bu ko defé yoonu du metti daal soxnaam jaara ndax mom amna borom kër wala amagul borom kër waaw amon na ko nag waaye jamono yi mom am ko mom benen ni mom may toog sante yalla rek sa digganteeg jàngkat yi sa ak kurel gi nga andal ndax bundee lim ci ndaanaani kenn sax man nañ ko lim ko ci melni Serigne Mamour Diouf mom machallah mi ngi toj eh, mariage yi ak cant yi ngeen bokk benn kuréel bokk ku leen di tëggal bokk benn awkat loolu est-ce la xaw a indil gàllankoor tuuti en tant nag ci ndaanaan boobu noonu. ku ci mel ni Serigne Mamour moom am na lu ma remarqué ci moom loo xamante ne si wax dëgg yàlla neex na ma trop ndax heure bu ma àndeek moom rek dem si programme su ma naree ñàkk si kar moom mooy ñàkk si kar ta mu gën a man li ma def li may def ndax moom ma ci jiitu mm-hmm. ndax moom. mu ngi ko doon ne si papaam te man nag sëriñ bi moo ko def si man ak sama jëwriñ man may papa juy sikkar mam maam juy sikkar dama ko bëgg nag nekk ci yàlla jàppale ma ci sëriñ bi jàppale ma ci waaye ñi nga xamante ni si ñoo topp ci sama ñoo ñoom laa topp ci seen ginnaaw mu ko mel ni Mamour Diouf ku ma jàppale la ndax programme ma mën di dem su ma naree féete ginnaaw rek moom lay jël boppam féetale ko ginnaaw jël ma féetale ma ci kanam ni ma aca bàjjen doxalal mm. loolu tamit ma ko ci sant di ko ci gërëm bëgg na ma dem torop bëgg na ma dem mm. ma ngi koy ñaanal moom tamit fépp fu mu ci bëgg a egg yàlla na ci egg doole si Cheikh Fall borom digal jërëjëf maam Diarra yaakaar naa loolu ñu ngi koy defarlu bu baax a baax ci leeral gu am solo googu waaye soxna maam Diarra mom ci daayira bi mom ci lay sikar wala da am yeneen di programme yo xam ne day génn di ko sikari yi waxuma la nag biir ngaay maanaam li wër ngaay dem dakaar wala Touba wala Kees wala ci yenn régions yi ci des nga xam ni soxna Maam Jaara génn génn bu sori boo xam ni moom bis boobu moom boppam lay doon. waaw suñu laal dañuy génn nag dañuy génn moom ndax yan saa ñu woo soxla ñu ndax liñ nekk ñu ngi ciy bëgg a yàgg nag yan saa ñu woo ñu ay Dakar woo ñu Kees woo Tiwaawan woo Ngaay ak liy wër Ngaay yépp ma ci nuyuwaale waa ngas ñu ma bëgg lañ bépp programme bu ñu mën a am man la ñuy bëgg ma jàng ko ma leen di sant bu baax di leen gërëm dañuy génn yemuñ ci daara bi kese dañuy génn am nañ tamit ménagère bu jigéen am nañ bu góor waaw bu yéen bu fekkee ci ku góor ki nga jaay yaa ngi jaar ci sang Baye Fall bu dee ci ku jigéen ki nga jot yaa ngi jaar ci jëwriñ Maram Njaay kon daanaka yoon bi daal moo nekk noonu. soxna Diarra. ñaari ménagères yooyu est-ce que du la xaw a gàllankoor tout say programme ndax ba wax ak kee moom nga wax ak kii moom est-ce que loolu du la xaw a gàllankoor tuuti ci sa programme yi nga xam ni moom nga war a sikari ak tamit euh, fay gi sa digganteeg ñooñu ménagères yooyu est-ce que loolu doo ci xaw a am ak réeroo tuuti. ah déedéet nag ndaxte euh, ñoom daanaka ñooy nekk. maanaam boo woowee kee rek maanaam ki ci des mun ci wetam loolu moo tax du metti si njun waaw wàllum fay gi nag moom dañuy wax ni rek ñoom daal ñoom ñi ñuy woo ñoom ñooy xool ndax tollooguñ foo xam ne nag dañ fee war a nekk di laaj yoo xamante ni si da da leen di xaw a sonal ñoom ndax dañuy jàng rek bis buñ demee nag ba man su boobaa ñu door a xam waaye di buñ leen demee defal leen ñu kontaan. ñoom bu ñu paree lu ñu jox lekk dinañ ko doyloo waaye tamit du doon loo xam ne ñu ci suñ loxo lañ koy teg ñu ngi koy teg si loxo ñi nga xamante ne si ñoom lañ àndal daal. ménageur ku ko am moom faaw nga fayeeku ndax yaakaar naa loolu lay jëriñ ci fay googu li ma ci gën a intéressé nag ci wax ji yi mooy yéen ñi xam ni mooy yéenay di di di yëngu ci tur yàlla wi yow seen i xiin yor seen i matériel mais ku wo ci programme auto bi ngeen di laaj Wow, euh, loolu daal euh, lan la. waaw sëñ laat nak buñ nekké mom tok bañ soxla ñu woñu mom hmm. euh dañuy andil auto te tamit dinañ wut tamit luñu tek ci suñu loxo nak ndax bu dara sax di ñi nga xamanteni ci si ñoo nekk sa ginnaw nga and ak ñoom ak matériel bi ndax matériel bi day lo xamanteni ci si mo koy liggéey mo koy defar faaw danga koy jël nga yéssal ko kon ñom ñi nga xamanteni ni si ñoom ñoo ñuy soxla pour ñu dem di leen yëngul ñom ñoo ñu jox xéewal yoo xamanteni ni si lañuy def ci matériel waaye duñ ko mettil nak wa dëgg yàlla duñ ko mettil ndax kay jangal ma rek dafa neex kay ma jangal la neexul waaye kay jangal ma mo neex mo tax ñu ngi nuyu fan si yëpp di leen gërëm di leen ñaanal jàmm. jërëjëf soxna maam jaaraka Ka yaakaar naa ni émission bi tey. Euh, defatina maninam ci sunu sit internet bii nga xamante ni mooy Teuf Connection TV Sénégal fépp fu ndaanaan nekk dinañ ñëw waxtaan ak yow incha allahu rabbi ci kàttanu yàlla sunu borom bi ko defee soxna jaara euh, liñ lay laaj rek ndax yaa ngi def euh, album wala nga am son yoo xam ni yaa ngi koy génne ngir sa soppe yi di ko bëggee ba paree di ko duglu am loolu fekkante ni tamit euh, am na ci ban site nga ko dugal ak tamit ci ban compte la nekk euh, tamit ku la ku bëgg a jàppale ci euh, fan lay jaar ci ban numéro la lay woo ngir jàppale la ci ci programme yi ci album ci son ci matériel ci tamit li nga xamante ne mooy ay bagage yi nga xamante ni sa digganteeg jàngkat yi lay doon ndax tamit boo nee jàngkat dina soxla matériel dina soxla ay rajo soxla oto soxla tamit euh, euh, lépp lu mu bëgg nga xam tamit da koy gën a dooleel euh, ci sikaram gën koo dooleem ci kuréelam gën koo dooleel ci nga xam ne mooy tamit ñi ànd ak moom tamit message boobu tamit nga jàllale ko waaye ba tey rek di leen dem ci suñu YouTube di abonné bu baax a baax a baax ndax ndaanaa ni ñu ngi ñëw incha allahu rabbi ànd yéen seen émission keppaaru jànkat yi. Oh, defaguma clip nag te génneeguma son. ay son nag moom am na yu bari yu ma si yor ndax fépp fu ma dem programme nag su ma paree ñi ma doon euh, lii dinañ ma jox sama samay son ma mu ngi noonu garder ko yenn saa tamit ma toog ay nit laaj ma ko ma jox leen ko waaye génneeguma clip moom waa bëgg naa ko nag bëgg naa ko bëgg naa ko génne te maa si xam naa ni fan yu néew rek walla weer yu néew ci kanam rek dinañ ma gis incha bu ma bëggee jàppale nag numéro yi may affiché ku ku ci woote rek incha allah soo ma bëggee jàppale dinaa ci jot waa 77 399 25 76 wala 505 70 505 29 49 77 399 25 76 wala 70 505 29 49 numéro yooyu ma affiché képp ku ma si woo. bu ma bëggee jàppale rek incha allah dinaa ci jot. jërëjëf soxna maam jaaraka Ka macha allah kontaan bu baax a baax a baax waaye tamit ci ban message ngay lancé pour ñi xam ne ñooy seetaan sit bi Teuf Connection TV Sénégal ndax sunu mbokk yi internet yi ñu ngi koy suivre émission bu nu dugal rek ñu ngi ci ànd ak ñun dina ci bëgg dina ci kontaane bu baax a baax rawatina émission. Euh, keppaaru jànkat yi ban message ngay lancé sa diggante jànkat yi ak ñi nga xam ne ñu ngi soog a dugg tamit ci jàng yi. waaw di santaat yàlla rek te jubluwaat ci yonent bi di gërëm samay ñaari waajur di wax ne rek yoon bi moom mu ngi noonu waa def lu baax moo am solo ku def lu baax am lu baax ku def leneen am leneen kon ndaw ñi nañu takku jóg te liggéeyal yàlla ndax àdduna jeex na bànneex ba jeex na dëdd ko jot na ngir Bàmba dem na di cant di gërëm di gërëm suñ jëwriñ muhammadan jiite duñ tay ci di wax di ko ñaanal yàgg yokk wër barké mam séra fall di ñaanal sëriñ cheikh digël fall gay nek xel ko mu yag fi lool ta and ak wër di am contenté bu baax ci wa Teuf connexion TV di leen wax ni leen fi la rek ñëw leen abonné ah, ñoo fi nekkal askan wi di leen jappalé di cant di gërëm di kontaan di gërëm sëñ laat ak ñu mu àndal ñëpp leen wax ni kontaan naa bu baax jërë ngeen jëf. jërëjëf léegi nag ñu ngi ci cappaandaw gi suñu jeexital émission di leen tàggu tàggu tàggutoo bu dul tàggutoo sama réalisateur maa ngi koy nuyu di ko ziar bu baax a baax lépp lu fi xam ni rek eh, jaar na fi rek ci moom la ndax ñu moom dañuy toog rek di wax. di ànd ak sunu invité rek di di leen jéem di leen bégal bu ko defee kon euh, soxna maam jaara leen si euh, sunu mbokki internet yi nga xam tamit ñu ngi duglu ndax jaara nga fi sikkat su neex euh, tamit teg ci olofal bu mucc ay léegi dañ lay jox rek nga daal di tëccee sikkar bu ko defee ñuy daal di leen di tàggatoo tàggatoo bu dul tàggatoo. di wax ne rek kon ñu yëkkati ko di wax ne lépp lu ci baax rek ci dogalu suñu borom la bépp jumte bu fi am. kàddu nit moo matul ñu koy jéggalu bu wér allahu laa ilaaha illallah ca yàlla laa ilaaha illallah allahu laa ilaaha illallah Cheikh Ibra laa ilaaha illallah allahu laa ilaaha illallah ca yàlla lay laay faal ilalla sëtub yonen be Useynu nga daanu keroog Karbala Karbala jaar na koy jullit jooy ba nga sopp yonen keroog ca Karbala Allah ci Yàlla la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Useynu dem na xare ba jeex na keroog yarabana yarabala taxabala allah bur yàlla laa ilaaha ifaal illallah allah laa ilaaha ifaal illallah jërëjëf soxna maam jaaraka yaakaar naa ni loolu am na solo sikar si nga tëjee rek wax dëgg yàlla ku ko dégg xam ni bu fi xiini nekkan dina neex dina xumb dina dagan macha allah ndax li mu def nii xiin la gën a man nan ko jàppale bu baax a baax ndaanaan la nekk doomi ngaay mexe nekk ki nga xam tamit Cheikh Ndigal Fall Baye góor rek la gëm moom rek la doyloo ba tax na nan moom lañ fas yéene ànd ak moom ci site bi daal di koy invité tey jii wax di yàlla seen keppaaru jàngkat yi keppaaru jàngkat yi nag bépp ndaanaan fay ma di nekk dinañ ñëw dara la incha allah ñeneen ci des nan ma xaar dinaa ñëw na ngeen di woy di abonné wu bu baax a baax ànd ceeg ab l'ancienne géewlu jankati waye na and ci ak sun site internet mag bi di Teuf connexion TV Sénégal émission bu mag bi kon ñu ngi leen def jox dig dajé inshallah ci kat yalla sun borom bi kon bopp jërë ngeen jëf mbokk yi ربي بما يزهر أزهر نخت فجأة belajar